mbaa kon ñu ñëpp daanu waalo di walwale bawal ñu kaanu góor ak jigéen ñëpp di yuuxu yi xoli jirim yog bàyyi pay warwari la biir njur bel ba yegg saalum ñëpp bi dem ku nekk fàttik baaxam warta ya def ab saq mel nag màggal jooyoo badal kenn talatul kamandal sëriñ saak donga ya ñëpp a di war faraw la tomba maa ko wooloo bisab keroog njàqare dañ na wa am keroog ma ne su misaal so xalamitim rasuulalaay ak saabaya ak seex bamba doona laay xam ni la génne joojawaay fa tey baa génne sëriñ tuuba fa ñu bel ba wax leen jërëjëfa sëñ tuuba jërëjëfa sëñ tuuba nun li nu am yaa nu ko jërëjëfa sëñ tuuba jërëjëf jërëjëf sëñ Touba waaw jërëjëf sëñ Touba waaw jërëjëf sëñ Touba waaw waaw jërëjëf sëñ Touba am yaa nu ko may jërëjëf sëñ Touba Bamba jërëjëf jërëjëf sëñ Touba jaaraama maam Serap yaa nu ko may jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba ñun lu nu am yaa nu ko may jërëjëf sëñ Touba wax jërëjëf sëñ Tuuba jërëjëf sëñ Tuuba waaw waaw jërëjëf sëñ Tuuba ñun lu am yaa nu ko may jërëjëf sëñ Tuuba jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba ku jébbuloo yaa ko waral jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba yaa nu ko Fallu Mbàkke lor dem na xeewal yi baawaan te dootu jeex abada wax leen lor dem na xeewal yi baawaan dootul jeex abada sun Fallilu lor dem na xeewal yi baawaan dootul jeex abada borom bindee lor dem na xeewal yi baawaan dootul jeex abada ko sopp Seex Fallilu xeewal war la lor daddu la dem na xeewal yi baawaan anta dootul jeex abadan abadan ku sopp Seex Falilu xéewal abadan abadan ku sopp Seex Falilu xéewal war la lor tëddula assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu eh, bokki jullit yi bokki taalibe yi fi teew yépp noo ngi leen di nuyu te di leen siyaara te di leen sant te di leen jaajëfal ci coono yi bis bu rëy bu tedd bii di bisu soxna Jaaratullaahi Mariam Bousso nuyoo boobu nag ak siyaare bi ak ñaan gi noo ngi koy jël teg ko ci loxol sëriñ lu Diop mi nga xam ne noo ngi ci këram mu tegal na ko ci loxol sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacké moom si Amadou Bachir mu tegal ne ko ci loxol sayxu suyooxi sëriñam sëriñ si jamono jii lu nekk di sëriñ si di Muxtaar Mbakke moom mi nga xay moo toog ci buntu kër sëriñ Touba xaadim rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar yi jaam ñi gannaaw ba mu toogee ci buntu kër Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbakke moom xaadimu rasul ñu du ko ñaanal bu baax Mbakke naal yi mu naal liggéeyal maamam ci toolu diine lislaam mu def ko na mu ko bëggee te lépp nu ànd ko ak moom loolu itam moom la nu ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha waaye loolu itam la nu ñaanal Serigne Mouhamadou Falilou Diop mi nga xam ne ci këram la nekk tey waaye loolu la nu ñaanal mboolem jullit ñëpp rawatina kilifa diine yëpp waññi ko waat di leen siyaare mbooloo mi fi teew mépp nuyoo bi ci loxol sëñ Fallou lan ko teg mu jot li ko mboolem kilifa yi fi teew yépp kenn ku nekk. nuyoo bi war ci sa jëmm jox nañ la ko ak siyaare bi ci war muy góor di jigéen di mag di ndaw bàyyi wuñ kenn di leen jaajëfal ci coono yi bi sëñ bi delloo ci boroomam 1927 sëñ Basiiru tàmbali jóg di tukki di ñëw nag Saalum gii ci la tàmbali mbirum poroxaan sëñ Basiiru mi ngi tàmbali mbirum poroxaan 1941 1941 la Serigne Bassirou Mbacké tàmbali mbirum Porokhane di ko nemmiku di defar dëkk bi xam ngeen ne Porokhane Porokhane tukkulóor la tuddoon Porokhane tukkulóor benn tukkulóor moo fi nekkoon bu ñuy wax Moussa Bani Moussa Bani nekk fi di ab tukkulóor ñu naan Porokhane tukkulóor sëñ Bassirou nag daal di taxaw temm ci dindi. tur woowu ñuy wax poroxaan tukulóor mu yem ci poroxaan rek mu def ko village ak boppam 1960 eh, la sëñ Basiiru dindi turu turu poroxaan tukulóor def ci turu poroxaan rek mu dal di jël taalibeem moom sëñ Basiiru mu def taalibeem bu tudd Ibrahima Mbay mu def ko muy chef de village moom la fi sëñ Bassirou njëkk a def chef de village Ibrahima Mbaye la tudd mu dellu digal taalibeem bu mag bu ñuy wax Serigne Bara Tall mu doxu si Porokhane yor barabu soxna su tedd si di ko taxawut néeg ba ñu fa njëkk a def taalibeem bu tudd Thierno Sarr moo ko def gannaaw ba néeg ba ràppee nag sëñ Babacar Diop moomu ma waxoon mu yeesalaat ko tabax ko tabaxat ban. xadda ko seng bi nga xamee nag ne 1952 la sëñ Bassirou Mbacké tàmbali màggal gii eh, mu daal di nekk bis bu rëy bis bu tedd waaye xam ngeen ne 1966 dellu ci boroomam bi sëñ Bassirou yi dem booba poroxaan gii benn néeg la fi sëñ Bassirou boo xayee tabaxu ban lañ ko tabaxee xadde ko ay seng benn néegu tabaxu ban la fi sëñ Basiiru bàyyi woon tabaxu ban ba seng lañ ko xadde woon booba sëñ Moustapha Mbakke moom sëñ Basiiru kër sëñ Baara Taal fa nekk amagu fi kër ca ay jamono sëñ Aliou Taal doomam moo fa nekk kon noo xam ne sëñ Moustapha Mbacké moom sëñ Bassirou jàmbaar la joo xam ne ni mu songe Porokhane ak lim fi def gannaaw sëñ Bassirou ndax sëñ Bassirou benn néeg la fi bàyyi woon boo xëyee tabaxu ban la ñu xadde ko seng waaye xoolal gannaaw gi fi sëriñ Moustapha andi Porokhane loolu ñëpp a ci teg seeni bët ndax man mii di wax ak yéen de wóor na yàlla ak yoon bi jëmmi sëriñ Tuubaa ba nga xamee ne ku ñuy wax ni Njaay Basiiru Caam daf may àbbu di taalibu sëñ Basiiru bu mag su màggal gi ñëwee mu luyee wata kaaru bay biram fay 46 bu ñu kaar maa ca daan yeew ay rajo ŋàbb ca ab rajo nii di woote bañ julli tisbaar 46 bi du fees nu déparé fa jëm si Poroxaan kon jamono yi lañ ñëw fii Saalum xam ngeen ne Saalum yàgg nañ fi maam Ceerno Ibra Faati borom Daaru Muxti fi la ganee addina maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam fi la gënee addina ñoom ñëpp Porokhane lañ gënee addina sëñ Mor Soxna taawab maam Mor Jaara magi mag fi la gënee addina ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon yàgg nañ fi lool ba yàlla dogal ñaari at lañ fi am soxna Jaaratullaahi bu Bousso dellu ci boromam ñu denc ko fee mu tëdd tey waaye xam ngeen ne wax naa leen ko fi bu dul benn du ñaare ñu bari faatu nañ fi ci wet gi ci des boo ko xoolee moom it barab yi ñuy siyaare la ndax sëñ Seydou Mbacke bàyyi sëñ Ahmadou Ndumbe Mbacke mii way jur sëñ Modou Xambaan fi la wàcc liggéey fi lañ ko denc ak ñeneen ñu bari loolu lim nañ ko fi budul benn du ñaare <coughs> kon fii barab la boo xam ne barab bu rëy histoire la barab bu tedd la barab bu barkeel la <coughs> barab la boo xam ne lépp lu waay di soxla ci àddina ak alaaxira soo ñëwee ci barab bi te sàkk ko fi nan nga ko fi war a sàkkoo suñ borom dana la ko jox ci daraje soxna su tend sii ak barkeb Serigne Touba xaadima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar jàmm siiw na ne fii day barabu soxna si ko fi ñëw sëñ Touba ne soo ma fi fekkut diir bu néew man ma fekk la fi boo fi ne jàng rek boo ma fekkut ma fekk la fi <coughs> kon nag loolu foo xam ne soo fa demee ne boo di fa wut jàng boo fa fekkul sëñ Touba ne fa jàng sëñ bi fekk la fa kon foofa ku la xam ne ne mat naa dem ndax sëñ Touba day fekk ko fi barab wala mu fekk fi barab booba barab ku ko xam ku ne war ngaa noosoo jamono yu nekk ngay dem ca barab boobee di fa dem ngir daje fa ak Serigne Touba xaadima rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar jàll kon noonu la deme mu nekk fi waaye xam nga ne biñ demee nag ba ma ba joxu daanu ca somb gannaaw moo jiite woon xare bi te moo leen fi indi ci lañ sëñ Mamar Anta Sali waajaat nag ànd ak Lat Joor ngir ñu dellu biñ jógee fii Pataar lañ dem pataar lañ dem foofa itam ca gannaaw njaañu njaga am nañ fa juróom-ñetti at dëkk nañ fa juróom-ñetti at xam ngeen ne sëñ Mbàkke Anta di magi maam Cheikh Anta foofa la wàcc ab liggéey moom it la waral mu wàcc ab waxoon naa leen ko fi dafa wax sëñ Momar Anta Sali bés ne dama laa am itte ci yow mu ne ko sëñ Mbàkke Anta dem di waxtaan ak sëñ Momar Anta Sali way juróom ne ko seet naa ba xam ne maag sëñ Bàmba sama rakk ji xëjunu ci àdduna te mooy sama rak kon damay dem bàyyi ko fi sëñ ma war alsali wax mu ne ko daal Mbàkke Balla loolu rek laa la doon wax maag sëñ Tuubaa xëjunu ci àdduna ndax asamaan mënta boole ñaari jant te may magam kon damay dem bàyyi ko fi loolu it sëñ Moussa Ka bind na ko njàmme sun jàmbaar ju tedd jooju ma ngay wax naan keroog la xëy ne bàyyi ba ñaaru jant xëjun ci seen asamaan dum lënt seereel ne dem naa man banaa fi Bàmba ak la Muhammad maa ngi dëkkee yonnen ba guddi keroog lañ yoon ma daal di faatu bàyyi mborog ko foofa ñoo ko yaatu ñu daal faaf soxna sa jox Cheikh Bamba nee leen suñu nopp doonay yonneen ba Cheikh Bamba taawloo foofa soxna Faatija sayid misay bintul Murtaja wax jëlee Cheikh Mbacke bu soo ko waxoon rahimahullahu keroog laa ko bindoon kon noonu la def moom it daal di faatu ñu denc ko foofee ca njaajum jaga fa la ko ma Mamadou Anta Sali denc waaye xam nga ne sëñ Modou Fati it bor maam Thierno mook maam Thierno ñoo bokk nay ak bàyyi fa la wàcce ab liggéey fa lañ ko denc moom it ma nga seen barab ya ña nga fa ñu li ko siyaare waaye naar bu ñuy wax Muhammadu Muhammadul Karim min ba ni day maan moom it xam ngeen ne foofu lañ ko denc mooy naar bi doon jàngal Serigne Touba xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaakaari jàmm yi ndax Serigne Touba jamono yooyu xelam dafa nekk dem gànnaar te su demee gànnaar ci Muhammadu Muhammadul Karim moomu ca dem ndax li soxla ci xam-xam boobu booba ci kooku la nekk. waaye naka jekk bëggug sëñ tubaa mooy bëggug yàlla bëggug yàlla mooy bëggug sëñ tubaa sëñ tubaa nee na muraadu xalbiya muraadu laayi maama sarati rasulillahi <clears throat> sunu borom li mu bëgg ci xolam ci bëgg-bëggam mooy sama bëgg-bëgg man sëñ tubaa sama mbégit mooy mbégum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mbégum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy sama mbég muraadu xalbiya muraadu laayi maama sarati rasulillahi loolu moo tax sunu borom dugal digal naar boobu ci baatin mu ñëw ba njaañ daal di fay toog sëñ Tuubaa di jóge pataar di ko fekk njaañ ak tànkam di jàng ci moom la mu soxla ci xam-xam ba ngacc ko ba mu jeex naar ba farul ñibbi njaañ farul ñibbi kon njaañ la toog ba faatu ñu denc ko fa nit dañ fay dem di ko siyaar ji ngir jàngal gi mu jàngal si Ahmad Bamba xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa na beneen naar ñuy wax Muhammadu bnu Abdullahi Hayyi waliyu naar la dib sëriif dafa ñëwoon njaareem siyaari si sëriñ Tuubaa xaadima rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaakaari jàmm yi sëñ Tuubaa boole koog maam Cheikh Ibrahima Fall babul muridina ne ko nga ganaleel ma ko Cheikh Ibrahima yóbbu ko këram di ko ganale ba àgg ci di ko tàngalal tàngalal attaaya ci loxol boppam wax nañ ne Cheikh Ibrahima keroog bi mu koy tàngalal attaaya Muhammadu ibnu Abdullahi moomu Muhammadu Abdullahi Hayyi Cheikh Ibrahima ba sangim toog dafa yóotu suuf suuf si rek jal ko ba mu jalo mu daldi ñunu baraada bi teg ko ci kaw jalu suuf bi ci kanam tuuti rek baraada bi dal di wañax Cheikh Ibra di xiibal naar boobu attaaya ba defal ko ñetti baraada ba naar bi doyal mu raxas ay kaasam baraadaam lépp teg maasalewaat gelu suuf bi suuf si ko sax defu ko ndax suuf nag ñaare daana de su jagee sawara dana soppi ko xaw a ñuul dara waaye suuf sax dara soppi ko wucca naar bi dal di tàggu Cheikh Ibra ne koy damay dem ñibbi gànnaar waaye damay jaari njaayi door a dem Cheikh Ibra te ngaa bañ a jaari njaañ te dem ñibbi rek mu ne ko du ma fa yàgg Cheikh bi ne ko ah, soo demee njaañ da nga fa yàgg dama ne soo demee njaañ da nga fa yàgg naar bi ne ko du ma fa du fa taxaw damay dem rek jàll moomu du Abdoulaye ay ba mu àggee njaañ ba wàcc teg tànkam ca suuf daa téen rek tudd yàlla ne man de nekk li ma Cheikh Ibra Fall waxoon man de njaañ laay des njaañ la faatoo fa lañ ko denc ba bisab tey ma nga fa kon Cheikh Ibra Fall noon na ko soo demee njaañ da nga fa yàgg te ngaa dem ñibbi kon defe naa ne yàgg na fa kon loolu lépp ay mbiri sëriñ bi rekk la waaye juróom-ñetti at yañ fa am lañ fa jóge nag ñëw Mbàkke Kajoor woo maka sa sanatay nii suma taxala xiila min rahmati rabbihi sëñ Mat Lamin Jóob daga na ci irwa u nadim nee na ñaari at la sëñ Mamar Anta Sali way juru sëñ Tuubaa dëkk Mbàkke Kajoor dellu ci boroomam loolu la bind ci irwa u nadim nee na mi ngi faatu we weeru tam xarit xam nga ne tam xarit mooy boppu atu jullit ci la sëñ Momar Anta Sali dellu ci boroomam ci ba mu amee juróom benn fukki at ak benn at sëñ Momar Anta Sali wii way jur sëñ Tuubaa juróom benn fukki at ak menn at la ko suñ boroom jox ci àddina mu daal di dellu ci boroomam <coughs> booba sëriñ Tuubaa mi ngi am fan ñaar fukki at ak juróom-ñeent ak benn weer boobu kon fanweeri atam manqué na am at manqué na fukki weer ak benn ndax sësin la ci gàddaay gi waaye sësin jooju booba Sëriñ Tuubaa ñaar fukki at ak juróom-ñeent la am ak benn weer ba at ma jeexee nag mooy at mi nga xam ne euh, ci la ñibbi nag ci la dellu nag Mbàkke Bawal waaye at moomu sëñ ma war an seli wàcc ab liggéey di 1882 ci la yoonu murid wii nu nekk juddu ci la yonent bi salaa salaam fekk sëñ Tuubaa Mbàkke Kajoor jébbal ko ndigalal sun boroom jébbal ko nuyoob yàlla moom rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam ak cant gu sun boroom sant sëriñ Tuubaa ne ko it sun boroom nee na nga yar taalibe bi ci yitte te bu leen yarati ci bind nañ ci boole liggéey nañ tarbiyewu sàkku ngërëmal yàlla fas dax bi maa tóomaru ca la sëñ Tuubaa jël xalimaam sëpp ca daaje bind mbindam mu rëy moomu amari ni بأن أصرح بأنني ملاس وإما ومفسح ومن أراد الخير في كلتا داني فليلس فيه saa borom digal na ma ne man mii wéeru xaay laa kaaraange laa boo xam ne ku bëgg a mucc àddina ak àllaaxira digal wéeru ci man ku wéeru ci man doo daan kon foofee la ñu jëkk ñëpp tàmbalee jaayante di Mbàkke Kajoor soo demee fa ñu doon jaayante gi gis nga fa nekkoon ñu naan ko gi gis Bàmba gi gis nga nekkatu fa waaye liggéey nañ ko mboolem fu sëñ bi daa nekk ci àll ba yëpp bare ba siyaare yëpp ña nga fa waaye yoonu murid daal ci gàttal foofa la juddoo Cheikh Ibrahima Sarr Ndiaye sëñ Dam sëñ Daaru Assane Ndiaye mboolem mag ñu jëkke bépp ba ci maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine ñoom ñëpp foofee lañ jaayantee di sàkku ngërëmal yàlla ci 1882 ca déwén sa la sëñ Tuubaa ñibb si Mbàkke Bawal muy assasine ci at moomu la sëñ Tuubaa ci boppam moom it jébbalu ci Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam ndax sëñ Tuubaa sëriñam moo doon bàyyam diirab li mu nekk ak sëñ Mamar Anta Sali nanguwul a taxawal dara nanguwul a yëkkati dara lépp am da koo yemale rek ci sëñ Mamar Anta Sali mii sëriñam di wasiilaam moo tax mësta nangu dara bi sëñ Mamar Anta Sali delloo ci boroomam nag ba ca déwén sa mu ñëw Mbàkke Bawal ci la jébbalu woon ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu it sëñ Tuubaa moo ko bindal boppam moo bind ne awaluma fda bihil qaddimu kan bi ma lahu taqdimu waasaral xidmata ama jëy sa si waxal boo almaraha min asasi sëñ Tuubaa nee na asas laa jébbalu ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam booba mi ngi am fanweeri at waaye nee na jëy sas nag laa takk sama ndigri laxa saayu nag takk sama der dem nag liggéey yi mooy bi demee ci géej gi booba la doon muritu ji bi mu demee ci géej gi la doon muritu ji waaye asas la jébbalu loolu moo ko bindal boppam nee na it ci at moomu la jëkk a gàmmo loolu it moo ko bindal ah yeytu moom lii di nebii wax waxaada lii faw xal mu naa fii tal sa si gàmmu yi sëñ Tuubaa nee na ci at moomu laa jëkk a gàmmu asas loolu moo dëppoo ak 1883 kon sëñ Tuubaa ba woy gàmmu ci réew mii booba réew mi kenn gàmmu fi ku dul moom Cheikh Ahmad Bamba xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaakaari jàmm waaye Mbàkke ba walla yooyu xew Mbàkke xam ngeen ne bari na ay xew-xew lool ndax soo demee jàkka yi mbusoo ba jee nga xam ne waa kër sëñ Njaaña Busoo ñoo fa nekk tey yéer gam ci biir jàkka ja dee na ba dagg nañ ko waaye ma ngi def laay ëkk ga ñu tabaxal ko néega boppam mu takk ca jumaa ji xam nga ne néeg boobu ah, yéer googu fi la sëñ Tuubaa doon wéeru di taalif Masaalikul Jinaan waaw yéer nga ca la sëñ doon wéeru wéeru di taalif Masaalik su dee guddi lay bind sëñ Mbàkke bu so mooy ŋàbb làmp fatafoor bi di niital sëñ Tuubaa foofu la gaynde ga doon dàqe mbaam àll ga ba mbaam àll gi daw dem làqu ji ci gannaaw sëriñ Tuubaa loolu moom sëñ Abdou Karim Bousso di doomi sëñ Mbàkke Buso moo ko waxtaanee ak man Niger lan daje boobu ci ab tukki lu bokk ci kër sëñ Tuubaa nga ca Niger fa la nekk ma ma ko leen ne ma sama baay ci jëmmam di sëñ Mbàkke Buso moo ma ko wax mu ne sëñ sëñ Abdou ne ma sëñ Mbàkke Buso moo ma ne Abdou Karim ma ne ko Mbàkke mu ne ma booba day sëñ Tuubaa day taalif masaalik waaye su dee bëccëg lu ma sa bind bu ma ko joxee ne ma weer ko de ca ca naaj wa su ma ko weeree ca naaj su ñëwee balaa bind dara daf may tëralal la mu bind lépp jàngal ma ko ba ma xam ko lu mu bind rek jàngal na ma ko ma masaalik di jeex mu ne ko mokkal naa masaalik waaye ne guddi la sëñ bi bind ne mu ŋàbb làmp fagafoor bi ni niital sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa wéeru ci yéer bi ne muy bind ba mu yàgg ñu dégg àll bi ni muy yëngoo téll téll gi metti lool ne ndakate gaynde gi mooy dàq mbaam àll ne ci kanam rek mbaam àll gi daw ba agsi daal di dem ci gannaaw sëñ Tuubaa daal di fay bu néew rek gaynde gi agsi ne gaynde gi doole ñim taxawe suuf si dafa naaw bay dar dal ci yëre yi sëñ Tuubaa mbubb sëñ Tuubaa mi mu sol waaye ne li mu bind wala dara xalima gi mi ngi sab rek muy bind rek ne gaynde gi taxaw ci kanam sëñ Tuubaa mbaam àll gi nekk ci gannaaw ñu nekk fa ba mu yàgg ab diir gaynde gi daal di wàññiku fa mu jógee woon mu daal di fay dellu ne mbaam àll gi door a daal di teg ndigam dem ne sëñ Mbàkke Buso ne ko ñu teg ci ab diir sëñ Tuubaa door a tëye xalimaam ne ma Mbàkke Buso Mbàkke ma ne ko Mbàkke ana yëngu boobu doon yëngu sànq la ko ah yëngu bi de doy na kéemaan lool dafa mel ne day mbaam àll gi gaynde gi da ko doon dàq waaye mbaam àll gi dafa làqu ci sa gannaaw sëñ Tuubaa ne ko xam nga lu ko musa la ko ah bëggoon nañ koo xam ne Mbàkke mu ne ko làqu ci ku ñu ruus rek làqu ci ku ñu ruus dong de moo ko musal làqu ci ku ñu ruus rek ko musal sëñ Abdou Karim nee na ma sëñ Mbacke Bousso teg na ca waxi boppam nee na ma Abdou Karim ma ne ko Bousso mu ne ma xanaa nun de ñu yàlla boo léegi sëñ war na noo sant yàlla ne mu ne ko ah, waaw waaw di Bousso mu ne ko kuy a bahima di njaa àll kon doom aadama su làqoo ci yow war naa xam ne raw na kon nun ñi làqu ci moom war na noo sant yàlla bu baax sëñ Abdou Karim Bousso nee na lii moom sëñ Mbacke Bousso ma ko waxal boppam muy waxi boppam kon loolu Mbacke la xewe ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu bari yooyu xew-xewi Mbacke la <coughs> waaye waxtaane wunu Mbacke soxna jaara la ñuy waxtaane waaye ñaari at atum ñetteel ma sëñ Tuubaa sëñ ji Daaru Salaam am fa ñetti at waaye ci biir ñetti ati daaru salaam yi ci ko suñu borom waroon leer wan leer ak Touba wan ko leer ak Touba nag mu jóg nag di wër Touba ci lu duggoon ci àll bi boo déggee ñu naan si xaw gaa aloom gaa noonu la ñu ko wax booba sëñ bi mooy wër leer ak Touba fu ne mu di fa dem di fa dugg xalwa di seet leer gi ba yàlla woon ko nag leer ga muy fee jumaa ja nekk tey muy barab ba fee mu tëdd tey bépp ga fa nekkoon bépp googa moo samp ci kaw tuuba bépp ga ñeenti bàngaas képp la defoon. amutoon beneen bànqaas ñeenti bànqaas la woon bànqaas bu ne jublu xibla muy ñeenti xibla yi <coughs> yëpp ga noonu la meloon sëkk lool naat rab yi dañ daan wër garab gi bépp di ko siyaara di ko wër di siyaara sëñ bi baax xam ne garab gaa ngi nii keroog ba mu fa nekkee ba fàkk julli ñaar rakk sëlmal la gees buubu ja noonu àndaloon daal di sant yàlla daal buubu ja tuubaa gi ma doon wut saa jox na ma ko tey sëñ buubu ja keroog na mës a dégg turu tuubaa kon ci loolu ci la nekk ci budul benn du ñaare waaye looloo tax sëñ Ka wax soxna jaara ne ko jub nga jubal nga jub nga jubal nga jàpp yow tey julli man Touba Mame Balla Aïssa ku daa ne ne mooy ñëpp ndax Aïssa Sidi ak Sadio Sidi ak Yacine Sidi ñoo bokk ndey ak bàyyi Sidi dema jur moom Lamine dem moom Siré dem ca Fuuta Alwaar te Aïssa Sidi moo jur Mame jur Mame Bara Sadio Ba mooy boofel waxtu bee ko may wut kon dana leer Yacine Sidi jur Kanni Sow mu jur Anta Kanni mu jur Mame Cheikh Anta borom Daaru Salaam mënoon naa gën a yaatu suñu ko waxtu bi mayoon kon dana gën a yaatu kon dafa mel ne taxaw lan war a def Serigne Touba xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba mu jógee rek la tàmbalee di dimbale taalibe yi dimbale jullit ñi dimbale ñooñu lislaam di liggéey boo xam ne suñ ko waxtu bi mayoon danaa leen ci leeralal lu yaatu ba leeral leen fulku masuun bi ko sëñ bi taalif taxawlu yi mu doon taxawlu ak na mu ko doon taalif yi lépp waaye loolu du fi xaj kon dañuy taxawlu foofu rek delluwaat di sant tey jéggalu tey ñaan yàlla mu jéggal nu ci barke borom Touba xaadimu rasulillahi salaa salaam barkeb soxna Sëriñ si nga xaye moonu fi dajale tey ñaan yàlla nag ci barkeb Serigne Touba barkeb soxna jaara sëñ Fallou Diop yàlla bàyyi la fi loolu sañees na koo ñaan ne yow bëggoo ko wax dara ci say mbir waaye nag am na lu sëñ Moussa Ka waxoon de noonu na am barke àggul ci di def luñ dul wax defkat bu dee def waxkatit ma ngay wax sëñ Moussa Ka moo ko wax te nag moom sa way jura woo gëm woo bëgg mbëggeel gu rëy gu wér ne bañoo kenn sax waaye noo ngi ñaan yàlla daal yàlla bàyyi la fi wattu la te sàmm la aar la musal ci mépp ndox saa yi ak baati mu ñu xam ak mu ñu xamul ak ku la ko yéene nag ak koo ko yéene yow nag yéene nga ko ku la ko yéenewul nag moo génne boppam waaye ñun génnewul sant ñëpp di di ñaan yàlla ñi fi teew ñëpp yàlla fi teew déwén yaa tawaaral sa keroog bi xiyaama soxna jaara ku samp soxna jaara nel ni nu màggal ko ginnaa ni faw kon nga raw sa maas ga aca muuritu ku sopp soxna jaara jógal màggal ko kuy muuritu ku bëgg soxna jaara jógal màggal ko ginnaa ni faw kon sa doom ma faj suñuy aajo soxna jaara jaara maam jaara ku fi am ay junniya yaa ko waral sa doom ma jommal jinda aca muuri tukk sopp alaaji fallu jógal magal ko dinnaani fawu kon nga raw sa magal ko dinnaani fawu kon nga raw sa maska mam jaara jaaraama mam jaara am daayira am daara am daayira ñu dal ci biir kër Soxna Bali nee na tubaab fekkal Soxna Bali dalal leen tàmbalee doon ñaar fukki nit ba tey jii ñu nekk téeméeri nit ak lu topp macha allah yàlla na yokk nee na yàlla boole koog magam jii di Cheikh Mahamadou Fadel Diop nee na saa yu génnee nee na mu di leen laaj ci docteur yi ak ni ñuy fajee ci biir dëkk bi di Porokhane nee loolu ñor sëñ Fallou du jëmmi jum Ndoubane moo ko ñor du jëmmi membre yii ci mbooloo nee ko ñor nee na di doxal ak li liggéey ndax soxna jaara mu ñor ko mu jàppale leen ci nee na yaa ngi leen jàppale saalal di leen jàppale sa doole ba yàlla dogal nee na tey mu yëkkati jëndal leen màkkaan defar ko ci ñetti weer jébbal leen ko nee na loolu jar na tax a wax ko ndax bu ñu fi kenn yëfi soxna jaara la ku nekk ci biir soxna jaara ci la bokk nee na tur turundu baan nekku ci de turu soxna su newu ci turu bu newu ci turu maam jaara ku day daayira maam jaara daayira maam jaara c'est Touba c'était woo ñoo ko moom nee na yàlla moo bëgg alhamdulilah nee na Cheikh Mawal Fadal lay ñaanal ci barke Seexul Xadim di ñaanal soxnaan su fii soxna day jaay nee na soxna day jaay nga xam ne ko ci liggéey bi lépp moo ko liggéey ba teg ko seen loxo ba tey jii ñuy daloo nee na te léppam di jóge fii di leen fekk ca kër ga nee na Cheikh kon sant la xale yii. nii nga leen def nee na moom jël jëlal na boppam waaye ñi mu àndal ni nga leen fonke ni nga leen faale ni nga leen bëgg a dimbalee ñoo ko xalaat ñëw yëkkati ko jox ko Cheikh Mourou Fadel ci bis soxna Diarra nee na jinne jinne ray jommal dëkk boo dëkk mu lakk ko nee moom la nee na loolu la defal ñoom yal na la yàlla fay bëggul ko tudd waaye dañ da tudd wasalaam kon ta na ñëpp tàllal ngërëm lu leen am rek suñu fàllu gërëm na leen lu xoram amin yàlla na yàlla bàyyi moom ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima uxliqa wal xaatimi lima sabaqa naasir al-xaq bil xaq wal haadi ila siraatika al-mustaqim wa ala aalihi xaq qadrihi ومقدار أمثلة barke sax ma sama mbas barke sax ma sax fas yéene liggéeyal am borom Tuuba fas yéene liggéeyal am borom Tuuba fas yéene liggéeyal am borom Tuuba barke sëñ Tuuba wa بسم الله الرحمن الرحيم صار إلهي بالمناجهات وابر الرحمن جرات دلال العلماء الأولياء من لا يسأل خوت مبرياء خزدتي خزدتي خزدتي فاخر خصدتي فاقت خصدتي فاقت فاقت فاقت فاقت خسر الكرام فقد خسر الكرام فاقت خسر الكرام فقد خسر الكرام ولتقول أبر الغرام مرام هديتي أخية كرم الكرام قال منازل واحرح ملك ما ترجع نصار الأحد بلا إله لا إله إلا الله دخل شرواء ويا مشرقا فاتدح مساء إني أتيت لإله ساحركم أبخذي غير ما أرجاه غير ما أرجاه غير ما أرجاه

حقا من أخشى الرسول أجمل من سارا إلى الذين

القرآن وفي أسوة فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة رجب وبحرمة رجب وبحرمة بما وسعت وكل من وسعت صلى وسلم وبارك من يعبد على سيدنا محمد وآله وصحبها وسم هذا المطلوب مفاتح البسر والأمن والجنة الصلاة والتسليم على مقيم السنة على مقيم السنة يا الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بحمد الرسول ودعني بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير سور وصلاة وسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين أما بعد فلاح أسأل بحق الله وجه الكرام أسأل بحق وجه الكرام أن يجعل هذا المفروض عملا صالحا متقبلا شربا لا السلام وانشم يود على وفاتح القسم والأمن والجنة في الصلاة وتسليم على مقيم السنة وأن يتقبل مني بقبول حسن وأن يحب لكل من اعتنى بإسعاد دارين ما كفايته من حماء وأن يغفر رجال مغفرة تدعوه كما لم يجنب خطل أن يغفر لوالديه والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات رؤوف يا جليل يا بخير يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارئ إنك خلد إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك وسميك والخير والخير كله بيديك عبدك راجيم المرسل أزل بين يديك خائلا وجهك الكريم وجهك الكريم مرادور يا من مرادور سلم سرمدا أحد سلم أحد سلم سرمدا أحد سلم أحد سلم سرمدا والذي سميته محمدا صالح أحد صلي والرسول تعبد والرسول فراج من عبد القلب صلي أبدا سلما ولا خليلك مراد العلماء والقلب صلي أبدا ما سلام وأزواجك تسجد السلام وكله شعبه وسحب فرسا ميني قد يحلحب هب الرسول لاحب فأخلامي بشارة يا من حاملاني وجه الأفضل ولا محمد وجه الأفضل رسول الله لم يكن ولا يقال ولا يقال ولا يقال أبدا الممكن باخر تسلم باخر وساعة خلدت ونس شكر سماء ولدت حب الرسول الواحد يا سن خدم مراد بلا سنة وقدر يا ربي يا عدل يا باخر حب المصطفى المصطفى ما بغيره صل صلاة سلسات شعر بشر مسلما والفرار بشر للمتقى عزيزات بسلام قوله وأحيته أفكرام قولوا أحيته قولوا أحيته أفكرام وذكر كريم بصلاح ما سلام الذي تنولاح وفي معتار كما لا ينحسر من يا ناصر ومنتصر ناجح اوصني بما يرغب في فات الراحب مراخب يا لسمس الشهدان فليا قنقعدان يا لسمس الشهدان fallu yàgg nga daan yaa di samsu soo daan fallu yàgg nga daan yaa di samsu soo daan fallu yàgg nga daan um nga lambi soo daan doo kuni baraawo um nga lambi soo daan doo kuni baraawo um nga lambi soo daan doo kuni baraawo yaa di samsu soo daan fallu yàgg nga daan ku ne baraam yow la yàlla wala yow la neex wala yow la nguur gu day la sama xel wala doomi Bamba yaa faar fañ yaari docteur ku gëm am taar yaari sundi naam wala fal ñu fay na bor ba fal ñu fay na bor ba fal ñu fay na bor ba fal ñu fay na bor fallu fallu barba fallu fay nga barba fallu fay nga barba fallu fay nga barba fallu fay nga barba muskil ma fallu fay nga barba muskil na barba muskil na barba ki ëlu su baba may ki mat imam may ki sunu standard ngeen ko daal di muxtaar foofu laa jëlee taar muy ñeeleel mu juumoo falilu lañ fu doy loo falilu falilu lañ fu doy loo falilu lañ fu doy loo falilu fu doy loo falilu lañ fu doy loo falilu lañ fu doy loo falilu lañ fu doy loo ndax xamam du bor loo ku ko sopp kii loo ndax xamam du bor loo baay naa ko jaamoo fonk naa ko gànki noonu naa ko fanki Fadulaay Mbàkke moom la yàlla taamoo wala man de ma saa dootu man de ma saa mbalu mag ma ay ci noonu daamoo Faduloo Faduloo Fadulaay ndaanaan ka yandaan alaaji fal yandaan alaaji fal yandaan alaaji fal mbakew yandaan alaaji fal mbake yandaan alaaji fal yandaan fal yandaan bu ka ñàkk caaxaan bakk naa te ngay daan ay nan ko raam bakk naa la te ngay daan bakk naa te ngay daan akraala te bay naan gaay naan karamo ibra jooba woote man sa di yeete ngir dajju saati fonk sun imaamu maa sa xaa di yeete ngir bëggal murid yi tey bëggal murid yi رقبنا جماعة فلله فلله فلله عدل الكار فلله عدل الكار فلله عدل الكار فلله عدل الكار فلله عدل الكار فلله عدل الكار فلله فلله عدل الكار فلله عدل الكار gën saxal kon noonu d'accord waaye dinañ ko jaamoo man sa laay laay mel ni baay laay ñoo ko ñàkk caay caay muy fukki limaam du dox di tomba du dox di songo du cooka mbaala muy fukki limaam yóbbu ñëw na soodaan yóbbu ñëw na soodaan yóbbu ñëw na soodaan بامدا بامدا كمان بامدا كمان وكل اللي جبان باي كل جمان دم ويا كلا مركب الجيل ترولا كلا ترولا كلا مركب الجيل أنا أعرف عن مركب بابا ويا كلا بابا ويا حقنا ربيك يا بكنا رجيرا بجوال تقلا سيدي إمامو بجوال تقلا سيدي إمامو يا كريم الحفيظ من كفاء الجيل كبرجاء كالمسلم لم يكن رجاء يعني تاكل الداخ سلك لا أنا لاخ رم يبني تاخ بجبير ولو يعني تاكل الداخ solkla aña laax réew mi ñëpp ngay taax di fi biiloor alaaj alaaj yaa fekk yaa daax solkla réew mi ñëpp ngay taax di fi biiloor yaa fekk yaa daax solkla aña laax réew mi ñëpp ngay taax di fi biiloor barikal rama شوخي مرحبا مرحبا شوخي مرحبا شوخي مرحبا مرحبا مرحبا شوخي مرحبا شوخي شوخي مرحبا راك فلمك مرحبا شوخي مرحبا شوخي شوخي مرحبا ñoom ñanta rabba ngay sunum rasool yàlla mu sun borom mooy dimbali nuyu sëñ Fallou Diop mu baax te ñu toog ak bokkam yu baax yi mu yàgg àndal liggéey bii ca Touba ak ci fii salaf yi gëj naa fi ñëw fukki at ak juróom-ñett moom fi delloo si waat te booba xëy na léeg-léeg suñu borom jublu noo ngi lay bu baax di la siyaare bu baax di ñaan suñu noo lay sant bu baax a baax a baax a baax waaw sant dafa mënta weesoo sant te xam na nu jëf xëy na li nu bëgg lépp mënuñ ko waaye ñu ngi jëf li nu man ndax fàllu mu mu nay kenn mosu koo gis fàllu mu du joxe mosuma koo gis man barke sëñ fàllu Mbàkke mosuma koo gis xawuma ko xawma fàllu mu nay waaw kon lii nii lay mën a mel doo bëgg sax ku ko wax waaye nag kuy jëf ngir jëmmi sëriñ tobaa danañ la wax ngir jëmmi sëriñ tobaa ndax gis nga lu baax boo gisee wax ko baax mooy ku bëgg lu baax ku ne bu déggee lu baax xolam da cay sedd te gis nga nit ku bëgg lu baax xolam bu seddee ci ci jëf ju baax rek ak ñaan gu doy sëkk la yal na sëñ Tuubaa guddal saw fan yal na sëñ tubaab barkeelal sa njaboot barkeb xasaayid yi li nga xam ne moom nga xool gis ko di ko jëf yal na nga ci aw am lu kawe sa njort barkeb sëñ Fallu maa ngi jégalu bu baax damaa ñemewut nit waaye bëggoon naa laa sant bi ñëpp xam ne maa ngi lay sant ndax li nga def sëñ ak saa mii ci mën nga ko def barke sëñ Fallou Mbacke jumum wa ahmaduhum samsun anaarat balla ay weer lañ sëriñ sëriñ Bamba moom di jant leeral na waa tuuba leeral diine tey woote ci ko ca saa si mbiram la yónneen waxoon Tuubaa bi daadee mu dëkkal sunna farfonk alxuraan saxoo tagg yónneen muy jihaaram ja xew Tuubaa bamba boromam du ko jiital mu jóg aw ndëggum nabi sarixatu lay boole xaqiiqatu jox Tuubaa bu soobee la meññeek Mbàkke alaaji Fàllilu def li nii màggal Sëriñ Fàllilu jërëjëf sëñ Maysa jërëjëf sëñ Akassa. di dikk terale ma ko man mii la sëñ Touba fay maa ko liggéeyal mu fay ma ca Gabon moom mi moo dem Gabon sëñ Touba jox ko xéewal yi mu dikk jox ma barke sëñ Touba yàlla na nga wér ci daraja alxuraan bi jaay Seydina Muhammad ak sa bokk yu baax yi nga xamante ni yàgg nga ànd ak ñoom liggéey bii te Touba ak fii. ngeen di ko ànd guddeeg bëccëg sunu xol sedd na bu baax a baax mënuma cee wax lu ëpp ndax bëgguma bëgguma nga mer ndax lii suñu wéetee dana ko kaas li ma bëgguma kenn sant fi kenn ku dul yàlla ndax lu fi am yàlla ko fi indi ak baaxu sëñ Tuubaa bileexi waaye nag jëf jii dafa rëy lool te rëy ci man bu baax a baax a baax baax te day wax naan su ma jullee fajar ba sëlmal dama naan suñ borom képp koo xamante ne nii tawat na la mbir te lim la tawat mu xaj sama wërsëg yebal ko ci sama kër gi yebal ko ci man ak ne ma damay toog ci kër gi ku ne jaas ma xam ne yow yàllaa la fi yebal <laughs> dugg ci kër gi ma xam ne yow yàllaa la fi yàllaa la moo la indi te loolu nag lu jafe la am nga ndimbalu yàlla nag lu rëy na yàlla bàyyi la fi te guddal sa fan barki sëñ Tuubaa xasida yi ma jàng wolofalu yaasin bi yaasin jàll jërëjëf jërëjëf su ma ko jàngee ba noppi teg ci Cheikh Ibra bi sax daal bu may xëy sax du borom tuyaas wala ndama wala ndama wala ndama dafa réer a yaasin ku dëkkale Bamba ak sëriñam dafay nar ku dëkkale Bamba ak sëriñam dafay nar ku dëkkale Bamba ak sëriñam dafay nar ndigim di xondar gisee su xambar fa yaasin fatu ka joor fatu ka joor nuru di ndaw alaam ku mën na ko def su dee su ko wóor na yaasin ku xam bay way nga far way ngeen di yandeen na xam-xam ba sama yaas Sëriñ Tuuba Sëriñ Tuuba ne man sama géer gi may way di déglu géwél bu xoy ma gënal fa yaas Sëriñ Tuuba na fi taalif na taalif ta saaba ya maa ca wàlli maa ca yaasin arafe nga way way ceeɗen mbatowayam aɗa sanga way bilkolasum kenen dafni sunna mahamadou rasulullah kenen dafni wajumatati a way luwaɗlunala addina fawoyasum lila tax man mani diwlam ci batil ɗumay seex bamba mbarum fuut yasum borom jar boɓema borom taag boobee moo ma jaral borom taag boobee moo ma jaral moo ma jaral borom taag boobee moo ma jaral di taalif di tuuru di tuuru ngir mu dan yaasin surat naa rabbu wa kalaani lamin liir naa bamba maa ngi lay yaasin ku la jaataar sam xel dem ci yónneen lu taaru ba yàlla yónnee ko saaru yaasin ku lay jaay taar sam xel dem ci nuur siraaju la lamp gaas gaas sayyidina Muhammadu sayyidina Muhammadu rasulullah sayyidina Muhammad sayyidina sayyidina fii kenn du fi mel ne yaasin sayduna muhammad buddul ba ni sell waa ji ko seen cay gaa def ab duuñu ba tax nga ne cam fa yaasin sayduna muhammad réew mi fa tax na ba mel ni fa yaasin wowul ba ni koŋ taw yaramam du laal weñ sewul ba ni lambaxi ak jur yaasin sayduna muhammad day saf kumba liiti سبني تصعفون من تحسب من تحاياس سبنا سبنا أحمد رسول الله وتم دفن جان بيرم سو مقرار وتم دفن جان بيرم سو مقرار سيدنا محمد رسول الله وتم دفن جان بيرم سو مقرار لصل نوجل لحن لا تفياس سيدنا محمد بتم بني بق par bari saf na na baax te moo gën a gis borom yi yaa rafaas sayyidina Muhammadun rasulullah Muhammadun rasulullah yow yaa ma jaral yow yaa ma jaral yow yaa ma jaral war safal naaw borom ak yow yi sayyidina Bamba yaas yow yaa ma jaral borom ak yow yi sayyidina Bamba yaas yow yaa ma jaral jaari satal yu na tëf barab bi ci leer ngir buuti leer fa yaasin sirkna sirkna muhammadun rasulullah yaa ma jaral fa seeg salma wala ilaa andon ndax man day ko am ci yaasin sirkna muhammad kila jaraway kila jaraway kile jaranax min yaaxal njaan balla yaasin njaaru kile jaraway kile jaraway kile jaraway kile kile kile kile jaraway kile jaranax min yaaxal yëpp di ceen bu ne ko di ceen fa yaasin ma kenn du la ceen fa yaasin ma kenn du la ceen ma kenn du la ceen fa yaasin xool naa ana santu ana defar suñu biir batana na ba ba daa koy Musa àndal santu ba tatal ba Musa ba daa koy Musa àndal santu ba tatal ba Musa jaaraama Seex Ibra Faal jaaraama jaaraama jaaraama daraam daraam Seex Rafaal mënatuma jekki te ku may jooy mënatuma jekki te ku may jooy mënatuma jekki te ku may jooy mënatuma jekki te ku may jooy waay sama sëriñ sëriñ Saliou ca yaa ko mën a njuuy mënatuma jekki te ne ko may jooy sëriñ Saliou ca yow adduna yaa ko mën a njuuy sëriñ Saliou boo gisoon gisub xol mu gis la koo mën a tee gisi mu sew fi xel sëriñ Saliou ko ñamoon mu ñam la koo mën a tee ñamit mu tax mu saf la sëriñ lu ko amoon te ñàkk ko ma tee ñu fa dégg mu tey jooy ba fekk ko sama sëriñ ñu ko amoon te xawle ko ñu ko amoon ñu ko amoon te xawle ko sëriñ Saaliw ñu ko amoon te xawle ko ma tee ñu fa dégg mu tey jooy ba fekk ko sëriñ bi waa këram ñu ne ko njaareem seen xol dootu gis وجريان حولها فنفرد أنا كفر سيدنا باتنا نبا وحب الله بن موسى أنا سنجبا فتبا موسى سلام لا إله إلا الله سلام لا إله إلا الله سلام لا إله إلا الله إلا الله يا لا لا إله إلا الله يا لا لا إله إلا الله يا لا لا إله إلا الله

أخبار قرآن bi jaay Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam maa ngi nuyu sama nijaay sama xarit boobu déwénee nee na ñun ñëpp kenn bañ a manqué fii nee na luñ fa joxe ci ñam mbaam ndox mbaa teraanga bu maa doon muy dara jiy soxna maa jaara bu la ngir yàlla ak maam jaara bu la nee na yàlla na ko saa borom ci dale yi Bamba nee na nag mi ngi sant sëñ Fallou ndax nee na lii mu def waaye ne kenn ci kenn ci ñoo nee na bëggoon nga ko yéene nga ko waaye nag yàlla mën la ko moom la ko yàlla man loo mu jëf ko man ko def ko yàlla sax te dara bañ koo jëf te mu jëf ko waaye nag nee na xam na xolam nee na baax lii mu def lii ah nee na yëpp la ci dugal booy yàlla yàlla wala tuyaal moom day jëf te yàlla tax kuy jëf nag te yàlla tax boo jëfalee yàlla nee na ñëpp ngi ci yéene waale ñëpp nga jëfal yàlla na ko saa borom nangu guddal nag aw fanam may ko wér yokk nag wërsëg wi ci barke Sëñ Bamba nee na li muy def ñëpp la ko defal nag nee na ku fi ñëw rek te di murit di nga ko ñeere nee def lu baax yombul surtout ngir yàlla metti na de nee na xamoo kañ la la yàlla fay rek ab dig la te ñëwagul moo tax xol dag koy def ak ku firti ak gën yàlla ak gëm yàlla nee na yàlla yàlla yokk wërsëgam ak saa li nga ñaan lépp doy na waaye. amin amin amin amin barkeb Serigne Saliou amin barkeb Serigne Saliou amin